monsieur le ministre ñu lay nuyu bu baax monsieur le ministre vous êtes à l'image de votre mentor yaru am teggin yëpp nit ñi loolu moo waral xëy na yu bëri di sa chance votre chance votre éducation waaye monsieur le ministre ñu waxtaan waxtaanee dëkk bi waxtaanee àdduna bi waxtaanee bitim réew de par votre réponse ci li nga xamante ne mooy voyage entre Dakar Rome Italie vous nous avez presque rejeté te loolu rafetul monsieur le ministre Italie Air Italie Alitalia ku mu mën a doon société bi noo ko tuddee parce que ñun xam nañ mécanisme yi am en Italie ba bu société buggee daanu nga bañ a fay la euh, travailleur yi nga changé ko tuddee ko neneen xam nañ ko yenn ñi la neex reste ñi ci des. ñu ñu fay leen ñu dem seen yoon noo ko mën a tuddee moo ñuy roñ ñun moodu moodu Italie yi di ñu indi fii te nous faisons au moins deux trois voyages par semaine waxuma par jour le coût du billet est tellement élevé que nit ñi pour ñu jënd billet sax yenn saa yi da nga koy dajale. loolu mën a jëm ci Sénégal ñu boole ko ak li nga xamante ne mooy presque suñu part te ñu bokk ci deuxième pays boo xamante ne dans le monde ñoo ëpp lu ñuy investir dans dans ce Sénégal. nga ne waaw avion bi sénégalais yi am moom ko mënta daw entre fii ak Dakar Dakar ak Rome nii Dakar ak Milan monsieur le ministre seet ko yaa ngi nuy dàq di ñun ci doomu réew mi lañ bokk ci lañu bokk dañu bëggoon nga négocier un contrat que Air Sénégal au moins di daw parce que ñun lu ñu jooy rek lu lu doom jooy yaayam a ko amul bu ñu duggee ci euh, avion italien yi. parfois man dama ko bàyyi parce que au moins jël naa ci tey ba tey la ci sama passeport euh, loo xamante ne histoire diggante ay hôtesse ak ay sénégalais dañ leen di maltraité ñu leen neex lañ di traité monsieur le ministre seetal affaire boobu bu ñu amee avion daf ñoo war a jëriñ sinon nag ñu xam ni xëy na la France vous a imposé son avion qu'il vous a prêté ngeen teg ko fi muy daw fu ko neexee loolu tamit mën naa nekk mais daal ñun ci lañ bokk boole ñu ci Euh, euh, damay wax rek ci lakk Rose par exemple su fekkee dañuy wax tourisme mu nekkoon lac boo xamante ne ñun ñëpp xamoon nañ ko ci bi ñuy nekk xale di daw di seetaani euh, fi nga xamante ne fa la tubaab yi di jaar ak rallye Paris Dakar tey lac bi roseul dafa marron boo moytul sax leen mu beige parce que jàpp naa ni lac ba nekkatul laxu dara xorom rek nga fay gis. muy tourisme bu yàqu kenn amatul loo fay soxla te bu fa nit ñi di daw di dem ay kon di fa samp këram keneen di fa def leneen parce que beauté bi fa nekkoon moo tax monsieur le ministre Lac Rose jàkk yaakaar naa ni war nga ko xam di nga ci jàpp bu baax le tourisme religieux man jàpp naa ni foo dem ci àdduna kër Serigne Touba nga fa amul foo dem kër Serigne Bamba nga fa kër Serigne Bamba nga Atlanta ma nga Brescia ma nga Milan ma nga Maroc ma nga Espagne ma nga fu am yittey ñëw tey Touba. seet si li fi xew donnez-nous la possibilité au moins te bàyyi peut-être comme ni ma ko ni ma ko xalaate waxee les plages à Bikini ak yooyu defe naa ni loolu du mooy doxal parce que jàpp naa ni am na fi ay borom xam-xam yoo xamante ni fii ci Sénégal tey am na ñu bëri ñu waroon a ñëw mën leen a seet si eh, ci dëkk bi mën naa cee jël le cas de du président Moustapha Niasse jël ci le cas de Abdoulaye Wade jël ci yeneen cas ak yeneen cas waxuma la loolu mais am na tourisme intellectuel am na tourisme religieux moi je pense que c'est ça qu'il faudra privilégier mais les plages on en a on en a assez tey boo demoon fii Thiaroye Géej wóor na yàlla ak yonent bi baa nga fa rafet ndox bu ko dàq ci Dakar amul mais kenn defaru ko ci defarin bi war ba tey ñu bañ a génn fii di dem ci yeneen dëkk yi monsieur le ministre c'est ça que j'avais à dire euh, je vous remercie dàpp naan daal ay nit bu ñuy investir lu toll ni 1200 milliards ci am réew war nañoo mérité euh, ñu jàppale leen euh, ba nga xamante ne dinañ mën di am sunu sunu avion boobu ni ñu ko bëggee monsieur le ministre loolu mooy sama doléance et je vous remercie merci La parole